برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان doole lii donc day wax rek dañuy liggéey doole lii lii technique bi ak mooy tubaab bi tubaab bi di liggéey dara doole lii fekkoon na ñun ñun ñu yenn bi ma yenn bi day buntu bi moo tax surtout ñu ngi ko ñëw si ñëw ñëw nañu ñëw di bëri na bëri na ñun dañu bëgg ngeen mën di raw ñun bëgg nañu yiw boobu ñëpp am bëgg nañu xanaa day Ousmane bu nekk bëgg nañu porte parole bi bëgg nañu naay bu xarit ko tëf ci xarit bi ñu Ousmane ñoo dëkk ñu gis seen bopp donc ñun nag man maa ci jël suñu décision en tant que doomi dëkk bi sant Niass moo tax dama bëgg leen ne xalifa bi ñu ci moom mu ëppale wàcc li ci des sama ko jël yóbbu ko ci porte parole bi mu gis mu rafet parce que moom mooy bëgg dinañu obra ñu jóg xàttal ko ñu doon ñu gën a gën a ñu doon sara ci seen mag ñu ci ko ñu doon ci mag wépp tous bu la ko def mo tax ni bu ko wax no solo man jëpp ci ñu c'est pour ça que ñu ci ci

Oh, yeah.

chaque jour dafay am bu suuru gàmmu. chaque jour dafay am amul amul benn jour amul benn jour bu ñu noppale. non non chaque